aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon euh, bisub tey di fanweeri fan euh, bis bi mooy bis bu mujj ci jataay al mashrabu saafi man al manba shaafi muy jataay bi nga xam ne bés bu ne ñu doon yëkkati xasida yi ci kanamu Cheikh Mountakha ñu koy ñaanal lool te mu ànd ak wér gudd fan lool te ànd ak wér dégg ngeen kàddu yi nga xam ne rakkam yu baax yi jottil nañ ko won ko ne tey la ñu gën ànd ci ginnaaw fas yéene taxaw ci wetam ànd ak moom liggéey bi moom mu Euh, loolu mooy jataay bi nga xam ne kon gis ngeen ko euh, nit ñaa ngi waaj génn saal bi njàng mi kon àgg na suba ak jàmm ko incha allah mooy benn fan ci shawal di ci bisub aydul fitre di bisub korité kon ñu fas ko yéene julli fii ci Touba euh, fas ko yéene julli ci yeneen gox yi nga xam ne yëpp ndigalal sëriñ bi moom moo fay dox kon loolu mooy li nga xam ne mooy jataayu tey bii du ñu def lu dul jottaliwaat ak cant rek wane tamit sunu mbégte ak sunu cant waaye kàddu gi gën a ñor kàddu yëpp mooy ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak ñaanal ko mu gudd fan lool lool lool lool moom mi nga xam ne defal nañu ngën gi taw féex defal nañu lu jomb defal nañu lu xamul woon sax ba ko kon loolu mooy jataayu tey bi kon ni ngeen ko gisee nit ñaa ngi ci waaj a génn waaye ku gis jataay bi xam ne nit ñi euh, sawaru sax génn defuñu ko euh, ñi ngi génn benn benn euh, ñi ngi seen rakkam yu baax yi ci écran bi yéen a ngi seen Eh, sëñ Fallou moom sëñ Mourtala moom ngeen di gis ni muy génn ak waa këram yi eh, kon loolu mooy jotaay bi nga xam moo fi am tey eh, donc en ce dernier jour du mois lunaire de Ramadan nous venons donc de terminer la dernière séance de cette euh, ces séances de déclamation que le calife avait baptisé Al-Mashrabu Safi min al-Manbahi Shafi la fontaine pure émanant de la source qui et c'est le Coran a de Ibn Kathir de Touba euh, qui avait l'honneur de faire ses déclamations. Et il faut prier encore, prier pour qu'Allah accorde une très longue vie, une très bonne santé à notre vénéré Kharif. Et nous avions prévu de vous parler de la singularité de Antarabi. Antarabi, euh, qui est un poème qui, dans son allure, peut ressembler à une sorte de happy end. Parce que globalement, le poème respire la gratitude. Il y a un lénifiant le poème est présenté comme une succession de bienfaits, de choses succulentes que le cheikh euh, demande à Allah. La singularité de, euh, de, de, de Antarabi pour sacrifier à ce qui a été une tradition, nous allons la respecter. Antarabi, sa singularité tient d'abord au plan formel, par sa rime. Nous avons l'habitude de voir le cher utiliser une seule rime dans un poème. Nous le voyons dans Jezbul Koulou. Tous les vers sont rimés en mi, Nous le voyons dans euh, Mimieux, les vers sont rimés en Mi. Nous le voyons dans les vers sont Et nous donc la, la particularité dans euh, euh, Antarabi, euh, c'est que le chef utilise trois rimes différentes et il les juxtapose 9 par 9. Ce sont les 9 sont rimés en les 9 qui en Li, en Li. Donc ça veut dire que c'est une particularité de, euh, de, de, de de, de, de Antarabi, la rime est un critère de classification les œuvres du chef. Il y a des tailleurs, il y et le plus marquant, c'est que le poème peut le titre, n'est-ce pas euh, Le titre peut de la rime qui a été utilisée. Donc si on voit un poème de 27 vers avec trois rimes différentes, mais ça veut dire que une écriture singulière Euh, Anta Rabbi. Euh, il y a aussi que euh, il y a une une une, une autre caractéristique de, de euh, c'est que le, sur le plan lexical, c'est un poème dans lequel il y a un terme qui revient plusieurs fois, c'est le terme d'ami. Il y a une proximité particulière avec le prophète Mohammed paix et salut sur qui est désigné à trois reprises par le nom de, de l'ami. On sait qu'il y a une pluralité de noms par lesquels il est désigné. Mais ce qui est caractéristique de Antarabi, c'est qu'on voit qu'il y a le nom, le, chef, le, le prophète est convoqué et appelé sous le nom d'ami. Et les exemples sont nombreux. Au vers 4, il dit euh, Je désire de toi en sa faveur le salut d'un ami. Au vers 5, il le réitère Je désire de toi en sa faveur le salut d'un ami qui m'est éternel. Au vers 15, il le confirme. Au vers 18, disant éternel adresse un salut amical émanant de moi et des miens. Donc cela veut dire que la particularité tient ici au fait du nom ami par lequel il désigne le prophète, ce qui dénote d'une particularité, d'une proximité particularité dans ce poème-ci. Au plan des centres d'intérêt également, euh, Antarabi est singulier. il est aisé de remarquer qu'on est loin des écrits, des écrits offensifs, caractéristiques des écrits en mer, qui sont marqués par de combat spirituel où le propos est très corrosif à l'endroit des ennemis de Dieu. L'état d'âme du poème aujourd'hui dans ce poème est plus apaisé et le ton est encore moins acerbe. Bien au contraire, c'est un chapelet de bienfaits, de choses succulentes qui sont des acquis dans les deux cas. Soit il les étale à la face du monde, Soit c'est une demande et on sait que selon son propos, ces demandes, ce sont toutes des demandes qui sont exaucées. Donc l'allure globale de, euh, de, de Antarabi est également une particularité. Nous avons essayé dégrainer tous ces mots succulents, toutes ces demandes succulentes, tous ces bienfaits, n'est-ce pas, qui ne cessent de juxtaposer. Et nous en donnons donné quelques exemples qui font la singularité de Mimir. Quand il dit, euh, euh et également, ce sont des demandes euh, ce sont des choses succulentes pour lui, pour, ses, pour les siens, mais également pour le prophète, celui pour qui il s'est engagé. Et la variété est très très remarquable. Et le cher commence déjà par la, le plus prestigieux, la plus prestigieuse de toutes les demandes, la plus appréciable pour le, pour le musulman, mais c'est bien le paradis. Il commence au vers premier disant, ma reconnaissance est à toi pour le paradis. Il le confirme au vers de je te suis reconnaissant de tout ce que tu m'as fait tout ce que tu m'as juste envoyé de l'ici pour le paradis. Il s'agit ensuite de la joie après le paradis. Vers 6, être satisfait. Euh, il le reprend également au vers 4 quand il dit euh, être satisfait et en, être en sécurité. C'est également une chose qui, euh, qui le tient à cœur. Euh, être satisfait, mais également avoir la sécurité. Au vers 8, la demande est encore rehaussée il demande le salut, il dit je désire un salut qui embrasse tous les grands honorables et serviteurs. Voilà également un autre aspect qui est particulier au vers euh, trente au vers, euh, vers suivant, euh, qu'il m'accorde d'une manière ininterrompue et sans perturbation sa grâce. La euh. demande de la grâce est également une particularité dans ce poème-ci, mais une grâce également, c'est une des choses succulentes qu'il demande à Dieu le Très-Haut. Au vers il a, il tout mon être. Vous voyez également une demande à son Seigneur. Vers 23, il le savoir et les désirs. Autre chose esculente qu'il a demandé et qu'il a obtenu. la meilleure assistance. Et on le voit donc, l'allure de un poème dont l'allure est une allure, n'est-ce pas, de bienfait. C'est comme si aujourd'hui nous avons opté de faire une sorte de APN pour un de contrat du parfum, mais il n'y aura pas de fin, ce n'est qu'une page qui est tournée et il y aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Euh, merci donc. Le mot de la fin, si fin il doit y avoir, mais c'est de prier qu'Allah accorde une très très longue vie et une santé de fer au vénéré Cheikh Muntaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à bientôt dans une autre Donc nous allons sans plus tarder euh, euh par des mots qui seront transmis par le Conservatoire des Huîtres Ce sont des témoignages, ce seront des propos par rapport à ce programme qui vient de s'estomper et nous allons laisser la parole. gannaaw cant gi ak mbégte mi ak ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñi ngi taxaw ak ñi nga xam ne ñooy jëwriñu liggéey bi nga xam ne moom lañu doon def fii muy njàngum xasida mi ñu fi def muy conservatoire national maa ngi dend ak sëñ Cheikh Samb dend ak sëñ Ablaye jóob dend ak sëñ Pape Assane Diouf dend ak sëñ Cheikhouna Ndiaye ñoom kenn ku ci ne yor liggéey bu ràññiku ci liggéey bi nga xam ne mooy xasida yi ñu doon jàng te sëriñ bi digaloon ñu ko yàlla dimbal nañu ba ñu def ko fan bu njëkk bi ba ci fanweelu fan bi ah, ngir tàggatoo gi ak tamit wane ne liggéey bi jeexul dañoo wëlbati ab xët rek waaye liggéey bi day wéy am na kàddu yoo xam ne bëgg nañ ko jottali euh, su ko defee ma jox sëñ Ablaye Diop mu jottali ko ñëpp déggandoo ko incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziare mbokk yi jullit yëpp di ziare mbokk taalib bi yëpp di jiital si ziar bi ki xam ne moo fi nekk Serigne Touba mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg lool te ànd ba naal yim naal bëgg ko liggéey sëriñ bi mu am am kër kawe njortam di santaat bu baax sëñ Mansour si kàddu yi ah, ndax kàddu cant rek la ndax lii euh, tawféex la ku ñu sëriñ bi defal ginnaaw sëriñ bi tawféex bu ñu defal nag ñu ànd kook mbokk taalib yi ak mbokk jullit yëpp rawatina nag nag waa daara Hizbut Tarqiyyah si sëriñ bi nga xam ne jaar na ko si jëwriñ daara ji ñu ànd kook moom euh, si liggéey sëñ Tuubaa bi muy weeru teet bi muy weeru koor kon lu ko tàmbali bis bu njëkk ba ba fanweeri fan yi nii lañ ko ànd moom saa bu juróom-ñaari waxtu fukk euh, juróom euh, ak euh, juróom-ñaar jote si ngoon gi rek ñu mën ko ànd ak moom ba ba lu toll waxtu ak genn wàll kon loolu nag sant nañ ci baax a baax a baax di sant mbokk jullit yëpp nga xam ne doon ñoo teewaay teewee jataay bi rawatina njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo ñoo nekk ay rakk boppam ay mbokki boppam di sant taalibe yi di sant euh, mboolem euh, mbooloo yi fi teew di sant kuréel yi nga xam ne ñoo doon euh, defal jataay bi ak si ak si mun taxaa muy mboole mboolem kuréel tax ya moo xam ñi xam ne ñoo nekk si biir salle bi ak ñu nekk si biti di koy nga xam ne taxawaay bi benn la. loolu nag di santaat tey ñaan yàlla ñu yàgg ko ànd ak moom mu jiite liggéey bi ñu yàgg ko dajeeg tawféex sëriñ bi di santaat bu baax a baax baax jërëjëf. donc euh, kon dégg nañu kàddu yi nga xam sëñ Ablaye Diop jottali na ko muy kàddu cant rek Euh, liggéey bu rëy bi ñu sëriñ bi defoon taxaw ñu dimbale ñu ba ñu def ko ni mu ko bëggee loolu cant war na ci euh, nous donc laisser la parole à sëñ Papa Sane Diouf qui est également un des membres des responsables du conservatoire national des Outarkiya euh, par rapport à ce programme que nous avons concocté en amont et que nous avons poursuivi pendant 30 jours il a également des mots à placer et à l'endroit de tous ceux qui l'ont suivi Inch'Allah vous allez l'écouter Euh, bonsoir, vraiment merci Seigneur Mansour et merci aux téléspectateurs de Al Mouridia TV. Euh, nous commençons par vraiment rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'opportunité d'exécuter ce vœu du Khalif général des Mourites en ce qui concerne la vivification du mois sacré de Ramadan euh, par la déclamation des, des Khassaïs de Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, c'est une opportunité, mais un don euh, qui a été très particulière pour nous, Isbutarkhia. Donc nous exprimons aussi nos vifs remerciements et nos prières de euh, longévité et de santé de fer euh, à l'endroit de Cheikh Modou Moutakha, Khalif général des Mourites. Nous connaissons son attachement à Isbou Tarkhiyam, nous connaissons aussi son attachement à la production littéraire de Cheikh Amadou Bamba, ses écrits que vous avez vraiment visités durant tout ce mois-là. Euh, ceci a, a motivé l'organisation que la direction du conservatoire de Isbou a consentie euh, durant ces 30 jours. Euh, euh, euh, ce qui concerne les courriels qui font les prestations à l'intérieur de la salle, comme les courriels qui font les prestations à l'extérieur, c'est-à-dire chargés de l'accueil et de l'accompagnement du calife, nous le remercions tous. Ils n'ont ménagé aucun effort. Tout le monde s'est investi pour vraiment rendre cette mission euh, euh, possible, mais aussi pour atteindre nos objectifs. Donc, au nom euh, de la direction du conservatoire des Tarkhir, dont certains responsables qui sont ici, ne sont pas le mois. À partir de 9h, Seigneur Massour, tout le monde est là. Tout est fin prêt. On, on se met à l'organisation. On essaie de voir qui doit faire l'accueil, qui doit faire les prestations, quels sont les chassaïdes à photocopier, etc. Là, vraiment, c'était un travail dur. mais merci à Dieu, nous l'avons réussi. Nous remercions aussi notre responsable moral, Seigne qui a été toujours aux côtés de la direction du conservatoire, par le choix des chassaïdes, par le choix des mélodies, par les conseils, par les remarques, par les orientations, comme si c'était lui le chargé du programme. Lui aussi, il s'est investi pleinement, sans repos, pour nous accompagner dans cette mission. Euh, nous remercions tout le monde. Nous remercions les frères musulmans, les frères mourides. Nous remercions tous ceux qui sont là, euh, que ce soit euh, euh, à l'abri qui était à l'extérieur, que ça soit là où le calife était avec toute la famille de Seigne Touba, vraiment le travail a été bien fait. Aujourd'hui, nous avons senti un, un, un, sentiment de satisfaction totale, Seigne Mansour. Voilà peut-être ce que j'avais à dire. Nous allons préparer une grande émission de, de bilan. Aujourd'hui, je pense à Al Mouridia TV. Nous allons revenir sur tous les détails de la programmation, des activités, des objectifs et des remarques de façon globale. Merci et merci aux téléspectateurs de Al Mouridia TV. Merci, Papa Hassan. Je crois que le, le, le mot est très clair. Euh, c'est un sentiment généralisé de satisfaction. Euh, et il faut rendre grâce à Dieu, et euh, lui qui nous a prêté main forte, qui nous a accompagnés pour que nous puissions, parce que réellement c'était un défi, mais le défi a été relevé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بالبيت